ziyaara jërë ngeen jëf mbokk yi noo ngi fii ci Rosso Sénégal euh, bi nu fi ñëwee ñu daje fekk Serigne Ahma Mbacké moo xamante ni moom borom Daarul Muxti ni ñu koy waxee di sëtu borom Daarul Muxti di ko xam ne yaakaar naa ne kenn laajatu ko ci yoonu murit ñuy fa yéene dem nag ci liggéey bu tedd bi nga xam ni mooy Sarsara ñu dajeeg moom mu daal ñuy indi lenn ci eh, li nga xamante ni moo tax murit yi di fàttaliku Serigne Touba ci dëkk bu tedd boobu nga xam ni eh, fa la amee woon ñeenti at muy Sarsara eh, Serigne ma kon ñu bàyyi la ak téléspectateurs nga waxtaan ak ñun ci gànnaar ak Serigne bi nam fa demee ak liggéey bu tedd bi nga xam ni daal na ko fa amal. Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah sëñ Koso mang ngi lay ziar di ziar mbok talib yëpp di am mbégte lool ci nu wara ziaré ji bërëb ya nga xamné fa la sëriñ bu mag ba jaaroon sar sara nga xamné mom da ci wax né innal ila qad qasadu aw barke bobé nga xamné moy ñako fa fekkon tém wax né takaliko nañ ak ay ci aduna ak alaaxira loolee lañuy ñuy dàkki mbooloo murit yëpp it am ci yéene am ci pas-pas ngir xeeñtu di sëriñ bi ba tax na kon noo ngi ñaan yàlla nangul nu jëf yi te yombalal nu dem beeg dikk bi te barkeel ko te bégal ci sëriñ bi itam kër kër ji nga xam ne moom la moom la murit yi def lépp li ko lal mooy bëgg sëriñ bi rek ak bëgg xeeñtu mbiram fu mu mën a nekk fii itam bu ñu fi ñëwee dañuy seetlu am na mbokki taalibe yoo xam ne seen yitte jëpp mooy dimbali mbokki taalibe yi di teeru di leen teral di leen jàpp ndaral dox bi ak lépp lu am solo la la uh, waaja waxoon ne wala qad amurru ala diyaari diyaari layla uqabilu dal jidaara wa dal jidaara wa ma xubbu diyaari saxaf na qalbi walakin xubbu man sakana diyaara mm-hmm. mooy danga ko fekk ci doj muy foon ak di lambatu ak di xeeñtu mooy leen waaye nag doj yi taxuñu maa jóg ki si dëkki woon ki dëkki woon bërëb yi ñoo tax may def kër kër ji ñoo tax may dox ni moo tax ñoom lay moom lay xeeñtu loolee nag moom moo ne mooy murid yi rek leen jaral ñu jóge fu sori eh, seen waxtu ak seen xel ak lu bare bari ñu di ko def ci yéenee dem ci bërëb boo xam ne sëñ bi dafa am sa taxaw nga xam ne sax moom yàggu fa woon sar sar xam nga yàggu fa lool sëñ bi yaakaar naa juróom benn weer la fa def waaye eh, bëgg sëñ Tuubaa daal mooy mooy li li lal dox bi yëpp ak kër kër yëpp yal na yàlla nag eh, fay leen ci ñoom ñëpp ngeen ji fay te boole na ko ñëpp daraje sëriñ bi. wa kay jërëjëf sëñ Ahmadou mbake mu melni ni wirdu am solo wi nga xamni moy werdul makhous Maxuus ni ci dekk bu tedd bobu la ko serigne bi eh, jele won wa werdul makhous itam ci Sarsara jamono fa sëñ ba nekké fofé la ñëk la ko ñëk ci Aksasin moy 1321 moy at mom fa ñëk démé rek fofé la ko jote loolu batay bok na ci li le Sarsara ak yenen bërëb yi te moy wirdu wo moy wirdu yoonu murit xane moy firndel mooy ab tariqa ci sëriñ bi ndax sëñ Basiir da wax ne bu ñu tariqa moy wirdu wi njëkk ak lañ ko digaloon rabbi himbitarsi. bil himmati wala turabbihim bid darsi waye fi nak ci sala nak fofu la jote wirdu wi nga xam nak moy al wirdul maaxuudu min allah xam ci sun borom ci moom jox jaarale ko ci bi sallallahu alaihi wasallam mu wirdu wo xam dajalem bo lem jagle yi nekkoon ci wird ya ko jiitu woon nga ne sëñ Basiir dafa wax ne fa in axasa wirdahu axasa wirdal jamii nga ne boo ko jëfandikoo yaa ngi def mbooleem ñu baax ñi lañ daa def lépp la mhm. ci kaw suuf tarixa yëpp la ñuy def yaa ngi koy def lañu am ci jagle danga koy da nga koy am mhm. waaw kon loolu it rek jar na ñu xeeñtu ci bërëb boobe bërëb di Sarsara ziyaara ji fa